jiitu kulla dararin yallaahu bi sirri laa ilaaha illallaahu kufiitu kulla dararin yallaahu bi sirri laa ilaaha illallaahu abli muraadiya kamaa ahwaahu bi sirri laa ilaaha illallaahu يسر لي الحسر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على النبي المستوى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة مخن بسلام الله بسر لا إله إلا الله salaatu muxnin bi salaamillaahi bi sirri laa ilaaha illallah xaalu li yarkan li abwaabi salaatiini tawus jawaayi sa tuxni kulla maayin fa qultu hasbi ya rabbi wa ktafaytu bi walastu raadiya xayral hilmi wa diini ولا سوارجو ولا أقسى سوى ملكي لأنه جل يخنيني وينجيني أني أفوض أحوالي لمن أجسوا هنا لأنفسهم أجس المساكين أو كيف يبعثني حب الأتام لا jiwaari man dooruhum rawdu sayaatiini in kuntu saa sanin aw kuntu saa watarin daawtu salayni xabla raayi wasiini wa wal muhiinu lazi laa say ayahjisuhu wa huwal mukawwinu ma سأي تكويني إن ساعت جلا أمر كان سهجال أو ساعت تهجلوه يبتى إلى الهين يا من يلوم فلا تكثر ودا حسالي إسلاس من فخداتي الدنيا بمعزاني إن كان هيبي يزول في هتام عيما فذاك هيب النافي ليس يخزيني سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi amaan mbégte di àndaat ak yéen euh, tey jii ci alxames ji euh, nekk juróom-benn fan ci weeru euh, baraxlu dëppoo ak fukki fan ci weeru mars ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci Thiel Hisnul Abrar daaray Cheikh Mouhamadul Basir mu Cheikh Abdoul Khadir tey jii nag ñu ngi taxaw ak waa eaux et yi nga xamante ne bii ñoom ñoo natt àll bi. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ziar ñëpp di teewlu ci liggéey bi liggéey bi vraiment rafet na ñu ngi ciy taxawaay taxawaay bu rafet rafet naa si def nañ ko ci jàmm ak salaam dëgg yàlla liggéey bi dem na euh, sooxewul deful dara ndox mi doy macha allah taxawaay bi ci taxaw daal wax dëgg yàlla am na ci yaakaar bu baax a baax a baax ne xam naa buñ bu ñu continuer nii moom euh, day gën a yokk ci kanam rek incha allah. leen di lañ fi ñëw ñun wax dëgg yàlla yaakaar naa suñ côté amul denn loo xam ne sooxee na. ci wàllu ndox mi ñu ngi ciy def lu ñu mën malgré métti na mais ñu ngi góorgóorlu ndax euh, kuy wut lu baax doo tey te liggéey sëriñ bi jar na ko ñu ngi sant yàlla bu baax di rafetlu aussi euh, kilifa yi fi nekk parce que vraiment lépp lu ñu leen wax aussi ñoom it ñu teg di euh, def ci seen kattan ak liñ mën yëpp ñu ngi koy def. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci liggéey bi. Eh, ginaaw bu ñu tàggoo ak waa Usefare yi ñu ngi fii nag ci docteur yi ku ne xam ne ne ñoo ñoom ñoo àndandoo ñëw ci liggéey bi. di rafetlu macha allah liggéey bi nga xam ne yàlla andi nañu fii muy liggéey ak sëñ di si ngoox mi fii di ko rafetlu bu baax ba maa ngi fii nag eh, si département de Linguère nekk si poste de santé bu Thiel ànd fi samay naataango kii maag moom ñoo nekk si Mamboy ko maag moom ñoo nekk si poste de santé bu Thiel eh, kii tamit c'est un collecte. mu ngi nekk à Touba moom tam la jógee ñëw fii jàppale ñu si liggéey bi ñoo fa ànd di liggéey noo ensemble. bon macha allah nag euh, liggéey bi nag euh, xaw na metti mais alhamdulilah parce que ñëpp jàpp nañ si euh, si gàttal rek comme ni nga ko waxee rek ñu ñooy ànd toujours mun ñoo bañ a di ànd mboolo fu ñu daje fu nekk day laaj kër docteur te instant bi ñu nekk yéen xam ngeen nu mu demee soj bi bëri na biir yu metti bëri na et puis ngeen coono yi. animé bi lépp mu ngi fii mais li si ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp fii si consultation bu ñu mën a wax moom mooy soj bi ak fatiguement général souvent aussi tamit ak manque di d'hygiène bi da siy am da siy jugé moom mooy andi douleur abdominale yi loolu daal euh, constaté nañ ko si euh, si gàttal bu ma doon wax ne démb si journée démb bi rek bon je peux dire que ne presque consulté na juróom-ñaar fukki malaat ak juróom yoo xam ne yu ma bind la rek mm-hmm. am na yoo xam ne nag euh, de passage lay jaar doo ko bind kon donc de macha allah macha allah xanaa rek di wax ne bu beneen yoonee nañ koy teel di programmer su ko defee ñu mun ñoo jàppale si mbiru garab parce que am na yoo xam ne aussi def du mat waaw du mat day manqué. yéen bu ñu si mën am daal moom moo ñuy arrangé di wax naan alhamdulilah. dund bi bañ ko fàttee fii ba léegi lépp loo xam ne war nañ ko jëfandikoo ci wàllu tool yi dara lu ci manqué moom amut muy ceeb bi muy diw gi muy lépp muy ndawal gi muy kecox bi. muy lépp loo xam ne dana dem ci ak togg daal loo jëm yi lépp doy na maanaam liggéey bi lépp loo xam ne waaye soxla na ko ci wàllu dund boo ñëwee fii dañ nekko ko jox ci bu sedd guy guy doo ci ànd benn coono sant nañ sëñ bit bu baax a baax a baax ndax dara loo xam ne manqué ne ci liggéey bi amut muy mburu mi di tàngal gi di café gi di suukar si di mbiskit mi lenn loo xam ne manqué ne ci liggéey bi moom amut ñun de bis bi sax dina togg ñaar fukki mbana yooyu añ buñ paree ñu toggaat fukki mbanay mbaxal mbaxal pour añ ak mbaxal la ñu togg ñaar fukki mbana togg ñaar fukki mbanay mbaxal su ko defee buñ paree rek ñu dënale ñëpp añ ñun maanaam buñ xasee julli fajar ba pare ñëw ci waañ buñ fi jugee waatee rek 23 heures lañ fi jugee waat.